PACASEN nag programme la bu nga xam ne la ko la ko la ko wundu mooy dooleel lépp képp kuy collectivité ci nga gën a mën a dimbale askan wi looloo ko tax a tax a jóg alal ji nga xam ne Sénégal def na ko ci toll na ci cent soixante-dix milliards mu doon lu lu takku euh, ci ci at yi ñu weesu te li gën a am solo moo di programme la boo xam ne du ñu ñëw rek jox la alal ni la demal balaa ñu la ko jox dañ naan la ah ñun de pour ñu jox la ko am na doxalin ak euh, organisation maanaam noo nooy tëggee ak nooy doxalee noo xam ne day tax ñu xam ne yow kat yorin wi ngay yor yi nga yi nga yor li ñu la dénk mu municipalité yorin bu mucc ayib la loolu boo ci góorgóorloo ba ñu natt la gis ne kat yow lépp lu nga xam ne warloo nga ko ci yorin def nga ko ci kaw loolu nag lañ lay door a jox euh, li nga xamante ne nii soxla nga ko ci kaw tam projet boo présenté du xaalis bu ñu lay jox rek mm. da da ngay voilà da ngay tëgg projet teg ko ñu càmbar projet bi bu ñu gisee ne projet bii kat projet bu am solo la ci kaw loolu lañ lay door a jox boo càmbaree doxalin woowu dafa den doxalin wu am solo ci ci ñaari poñ bi njëkk projet bi municipalité bi bëgg projet faw mu joyanti ñoŋal ak amélio ak euh, gën a gën a saytu ni muy yoree municipalité am te loolu bu ko xasee def même bu weesoo programme bii rek loolu njëriñ la ci askan wi. donc loolu dafa nekk lu ama ama solo loo xam ne jàpp naa ne war nañ koo gën a wasaare ci yeneen programme yi fi ne euh, ci noonu ci euh, gafag cent soixante dix milliards yi nga xam ne wax naa ko sànq daanaka financé nañ lu tolloog mille vingt trois projets ci Sénégal gi yëpp xam loolu moom am na solo te ni nu ko doxalee ne municipalité bi moo war a tëgg projet loolu aussi dooleel municipalité la ci xerañte bu mu war a am di tëggi projet présenté ko ba tëggin wi dal xel ñu doon ko financé te niñ leen bàyyee ñoom ñu tëggal seen bopp seeni projet moo tax ñu am projet yu bari te wuute xam boo xoolee projet yi di nga gis yoo nga xam ne ci mbiri marché la yii ci mbiri ndox la yii ci mbiri électricité yii ci mbiri santé da ngay gis ne kon projet bi la koy orienté mooy bëgg-bëggu askan wi te ku ko gis xam ne bëgg-bëggu askan wi ne doon na lu nga xam ne wuute na Euh, ci gox bi ak par rapport ak gox bële donc PACASEN moom vraiment doon na loo xam ne am nañ ci vraiment mbégte mais nag am na ay joyanti wala ay ñoŋal yoo xam ne moom du ñàkk parce que jëf ju mat amul xëy na yéene mooy mat te suñ borom moom mooy matal jëf li nga xam ne daal gëm nañ ko te gis nañ ko xam nañ ne projet yii ñëw da projet yu nga xam ne dañuy ñaan nit ñi ñu gën a xool ci coppite gënu nga xam ne am nañ ko ci jaww ji maanaam ndox mu bëri mii ñëw tàngoor dëkk bi di gën di tàng suuf si di gën di am jafe-jafe gàncax gi di gën am jafe-jafe coppite yooyu nañu wut ay projet yu nga xam ne day tax ñu gën a mën a dëgër ak am ndëgër laay ci coppite yooyu nga xam ne dafa nañ ci climat bi bi ci topp tam euh, wax nañ ko euh, municipalité maire yu bëri waxtaan nañ ci PACASEN baax na waaye nag war dañ koo ubbi ci dëkku dëkku àll bi euh, maanaam monde rural ndax ku Sénégal monde monde rural c'est près de 46 pour cent donc loolu mënuñoo rek tëb tëb rek bañ a am programme bu mel nii am euh, vraiment réussite yu am solo yi ñu bañ ko faa euh, xool donc loolu tam nekk na lu ñuy càmbar.